ne amuloon nañu sebu jo si tribunalum Dakar ki nga xam ne na mooy njiitul syndicat bi ëmb pharmacien yu Sénégal yëkkati woon naay kàddu nee na ndax est-ce que faux médicament yi nag munta toll ci benn million ci ay nit ci déndu Afrique ndax ñoom ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum pharmacie dañoo jàpp ne ay faux médicament li nga xam ne moom lay rey ci réew mi maanaam bëri na lool rawatina ci déndu Afrique yéene kaay gi te réew mi quotidien ba tey ci xëlim ak la mu xam le nee na daani jamono ji nañu ko war a gën a yokk ndax faux médicament war nañu ko mën a jàppe ni drogue ndax ay médicament bu ñu ko jëlee denc ko foo xam ne ñu ko faa denc loolee rek maanaam ak loraange lay jur yéen kaay gi di Dakar Times nee na chinois yi xam ne teg nañu leen loxo ci lu jëm ci wàllum njuuj njaaj ay faux médicament avocat yi nga xam ne ñoo leen delayal di Me El Hadji Diouf ak ñi nga xam ne ñoo bokk sax ñi nga xam ne ñooy layal chinois yi ni ki démb janoon nañu ak taskatu xabaar yi ñoom nag dañoo jàpp mbir mi ab complot ba pare tuumaal nañu direction pharmacie ak médicament ñi nga xam ne nag ñooy waa douane avocat yi chinois yi nee nañu douane ñoom setal nañ société dayku ba société ba seet wecc ba tey ci biir journal bi di Vox Populi Me complot la waaye a danañu ko xeex ci wàllum yoon ba mu saf sàpp yéene kaay gi délibération nee na chinois yi nga xamante ñoom la jàppee lu jëm ci wàllum faux médicament association de malfaiteurs maanaam lëngoo di def ay ñaawteef ba pare tuumaal leen bëggoon nañoo andi ay gàllankoor ci dund ak nekkinu askan wi yéene kaay gi di enquête nee na en tout cas faux xam ne moom lañ jàpp ci diwaanu Ndakaaru jamono ji nag maanaam piccog mbaaloo gi bëri si yi ñoom la ñuy wax nee nañu loolee maanaam ay médicament ca la bokk yéen kaay gi de Le Quotidien bàyyi mbir moomee daa wax ci laboratoire national ñi nga xamante ni ñooy saytu lu jëm ci wàllum lekk gi ci Sénégal laboratoire boobu ñoom nag jamono ji ñoo ngi sàkku ay moyens yéen kaay gi de Les Échos xëy wax ci mbiri Ousmane Sonko capitaine Touré mi nga xam ne moo yoreen dossier bi ginnaaw nag bi ñu ko tege ay daan lu toll ci quarante cinq jours yéen kaay ni tegoon nañ ko capitaine Touré jamono ji nag ñaari weer yéen a ne na dina am benn conseil d'enquête boo a kaay la sax xëy na bu baax a baax élection locale gi nga xam ne moom lañ koy dàq waaye ñaawlu na bu baax a baax mitin nga xam ne waa benn bokk yaakaar ñoo ngi koy amal moom muy sàkk ñu amnistie Karim Wade ak a la témoin xëy dañu xibaar naan ñu député bii di Yaya Sow moom ñaawlu na bu baax a baax mitin yi nga xam ne waa benn bokk yaakaar ñoo ngi koy amal moom sax dafa dem ba jàppee ko maanaam ay mitin yoo xamante ni duur marte ko tax a jóg kaay gi de la turbina nee na benn bokk yaakaar nar naa tas ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la rawatina gox bii di Louga ak Thiès ak Kaolack ak Kolda ak Ziguinchor ndax gox yi xëccoo yi dana bëri lool kenn ku nekk du ko bëggee bàyyee moroomam yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na am na benn rapport d'enquête boo xamante ni daal nay génn ci waaxu Libye yi ak ñi nga xam ne ñoo fay ñàkk seen bakkan ak garde libyen yi nga xamante ni ñooy lànk kandaare di bañ a dimbale ñi nga xam ne ñooy lab ci géej gi te moo ne day bëri yoo xam ne Europe lay jóge maanaam jëm ci ñoom yéen kaay gi di source ñu xëy fekk dafa syndicat bi nga xam ne moo ëmb médecin yi nga xamante ni ay technicien lañu ñoom nag nee nañu danañu dem ci ab girawa ñaar fukki fan ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu banque mondiale ak agence nationale bi nga xam ne moom lañ dénk ci Sénégal lépp lu jëm ci wàllum statistique ak wàllum démographie ñoom nag nee nañu fukki salarié yoo jël juróom-ñeent yëpp bieetaas lañ leen di fayee maanaam liquide lañ leen loo xamante ni mën na koo xañ Sénégal yéene kaay gi de nga xamante ni ñoom lañ tegoon loxo ci lu jëm ci mbirum Baffa Bayotte ñooñu nag toll nañ si ñaar fukk ak juróom jamono ji nag ñoo xiifal la ñuy sàkku mooy seenu procès ñu koy ubbi yéen kaay gi di lamb ñu xëy fekk Xaadim Gadiaga Burook énergie nen na combat Modou Lo Ama Baldé dina am ci nii wala ci naa même sax su dee amul ak Luc Nicolaï ñoom danañu def seeni dëbbal dëbbal ba combat boobee taxaw yéen kaay gi di sunu lamb nee na en am moo say xëy neexul ndax ba léegi nii kenn wu ko amul benn date boo xamante